Sunu People TV, la chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information en temps réel. Suivez l'actualité politique, musique, buzz, sport, société. Abonnez-vous sur YouTube afin d'être les premiers à regarder les toutes dernières vidéos. Contact 77 732 92 37. Sunu People TV, l'actualité en temps réel. L'actualité en temps réel. bokk yi xarit yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci sunu people TV ñu dikkaat ak yéen ci li gën a fës ci internet bi li gën a fës nag bokk na ci gouvernement bu bees bi leen nga xamante ne Macky Sall def na ko ci dimanche bi nii daal di am ay ministre yu mu wàcce daal di am ay ministre yu mu duggal ci biir gouvernement bi bokk na ci ministre yu mu wàcce ku ci mel ni Aly Ngouille Ndiaye ku ci mel ni kile di du Ba ak ñeneen waaye nag bi ñu ci gën a ràññee ci ñi nga xamante ne ñoo dugg ci gouvernement bi di kile di Idrissa Seck bi nga xamante ne moom la def mu nekk président CSE mu di conseil économique social et environnemental waaye nag li nga xamante moom moo indi rapprochement bi bokk na ci ñu ne ki di Serigne Mountakha Mbacké moom tamit def na ci rôle boo xamante ne rôle bu am solo la waaye nag ñi nga xamante ne ñoom di journal bi di l'Observateur ñoom dañu indi li nga xamante ne moo gën a tax Idrissa Seck daal di ñëw liggéey kii la di Macky Sall ñoom nag li ñu xamal ci journal bi moo lii li indi rapprochement présidentielle yi ñu jëm muy 2024 ndax kii lee di Idrissa Seck moom dafa bëgg présenté waat moom nag xam nañ ne ñi nga xamante ñoom ñoo di opposants yi nga xamante ne ñoo fépp doole bokk na ci moom mi di Idrissa Seck kii di Ousmane Sonko ak kii di Karim Wade waaye nag li nga xamante moom moo indi kii di Idrissa Seck daal di liggéey kii di Macky ñu ne bokk na ci élection yi nga xamante bëgg na kii di président Macky Sall di ko ci jàppale bu a xamante ne moo dox ci diggante kii di Idrissa Seck ak Macky Sall nee ñu mu ngi tàmbali ci lendemain élection présidentielle bu 2019 kii lay di euh, Macky Sall moo njëkk def les premiers pas daal di dem euh, ci ki nga xamante ne moom moo di Idrissa Seck gisante ak moom waxtaan ak moom ci benn guddi goo xamante ne kenn fekkewu ko foofule ci point E ñu ne gannaaw ay weer yoo xamante ne toftal nañu ko kii lay di Macky Sall moom tamit euh, ki nga xamante ne moom moo di Serigne Mountakha ak kii Serigne Moussa Nawel bokk ci famille kii la di Serigne Touba ñoom naka nee nañu def nañ ci ay jéego yu am solo ba kii la di sa Seck daal di mën a àndaat ak kii la di président Macky sal lool nag journal bi di l'Observateur ñoo ñu ko xamal ci IGFM mbokk yi xarit yi way leen di abonné ci sunu People TV ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax.